dafay laaj mu ne suñu la joxé terme est-ce que bla bobu mën ngaa pousser bien sûr mën lay jox terme nga am dom bla bobu comme nga am dom après terme bi parce que waxon nañ leen ne échographie yi nga xam ne moom la ñuy def dañuy prévoir marge de dix maanaam bis bi nga xam ne moom lañ la wax moom ngay am doom loolu bés boo xam ne dañ ko njort maanaam wax na nag ne bés bi ngay am doom amoo ko doom nga ne ah docteur boo xamul dara loolu am na ñu bëri ñoo xam ne di dal bés bu njort la cest bés boobu mën nga ci am doom comme laataa bés boobu aussi war nga ci mën a am doom. dafay laaj mu ne su ñu la joxee terme est-ce que balaa boobu mën nga accoucher bien man lay jox termo nga am doom balaa boobu comme nga am doom après terme bi parce que waxoon nañ leen ne échographie yi nga xam ne moom la ñuy def dañuy prévoir masse de 10 jours maanaam bis bi nga xam ne moom lañu la wax moom ngay am doom loolu bés la boo xam ne dañ ko njort maanaam waxuñ la nag ne bés bi ngay am doom amoo ko doom ne ah docteur boo xamul dara loolu am na ñu bëri ñoo xam ni dal bés bu la c'est-à-dire mën nga ci am doom comme laataa bés boobu aussi war nga ci mën a am doom. dafay laaj mu ne dafa def test mu négatif te premier ëmbam bi kon dafay test dafa positif woon ndax ko indi ay complications loolu. amul indi benn amul benn relation ak affaire complication peut-être mën na la poser souci parce que am ñoo xam ne dañuy teel a def test ñu def ko mu négatif après ñu jox leen deux semaines ñu def échographie ñu def ko mu positif échographie génn ëmb loolu li ñu ci mën a expliquer mooy test boo ko teelee def soo amee matagul ñaari semaine nga def test c'est très fort probable mu bañ a positif mu def négatif wala mu def benn tere du leer parce que dose hormone bi nga xam ne moom la ñuy doser moom la ñuy tester bëreegul ci yaram bi looloo waral nga def tel tel def test mu négatif mais bu ñu joxee deux semaines après nga def échographie dañuy gis ne dañ mën a génn ëmb loolu kese la mais amul benn souci hmm? on est d'accord ki dee laaj 22 semaines ñaata mois la 22 semaines mën nañ ko xayma. 5 5 mois. bon hmm. comme ça que je expliquer. le traitement de l'ulcère gastro-duodénal. Hmm. comme je l'ai dit tantôt pour le mécanisme de l'utilisation des l'INS, beaucoup de gens de santé le méconnaissent aussi, le hmm. traitement. Parce que euh, si, si, si un agent de santé euh, reçoit un patient, il sait, la première chose à faire, hein, c'est de lui donner des gastrogels mm-hmm. et Omeprazole tout simplement, mm-hmm. alors tel n'est pas le cas. Mm-hmm. Tel n'est pas le cas. Parce si tu as un patient qui est ulcéré, hmm, de grâce, il faut lui donner le traitement qui a été recommandé. C'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est l'oméprazole, l'IPP, plus le Fragile, plus l'amoxicilline. Et maintenant, on a remarqué qu'il y a une résistance de ce qu'on appelle l'hélicobactère pylori. Mm-hmm. Et l'hélicobactère pylori même est à l'origine de la prescription des deux antibiotiques là, l'amoxicilline et le flagyl, mm-hmm. sur le traitement. Parce que l'hélicobactère pylori là produit ce qu'on appelle l'uréas. L'uréas. Et mm-hmm. l'uréas est à l'origine de la destruction de la euh, muqueuse gastrique. Donc, pour le traitement, il faudra mettre en évidence un IPP, à savoir et euh, plus le flagyl Mhm. plus l'amoxicilline. Flagyl 500 mg, un comprimé fois 2 mhm. pendant 2 semaines. Mhm. Amoxicilline 500 mg de préférence gelule, c'est beaucoup plus adéquat parce que le gelule là c'est beaucoup plus facile à appliquer, surtout c'est mon patient qui est ulcéreux. Amoxicilline 500 mg, 2 comprimés fois 2. Mais pour le. laaj mooy lan moo les ANS les anti-inflammatoires non chirurgiens di cause li nga xamne ne mooy ulcère gastro-duodénal donc la physiopathologie de cette maladie lañ bëggoon nga ñëwaat tour ñu ci bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp keur docteur di la jaajëfal <laughs> euh, yaakaar naa def nga laaj bu am solo parce que la plupart des agents de santé connaissent ce mécanisme d'action là parce que souvent ils ont des patients et ils disent à leurs patients que euh, par exemple l'ibuprofène fait partie des ANS, prophénite fait partie des ANS et ils leur disent que Ça, c'est contre-indiqué. Si tu as, si as l'ulcère, tu ne peux pas le prendre. Juste, les, patients ont compris là-bas que ça va, euh, ça, va, ça va créer une brûlure gastrique. Ce n'est pas ça. Les aériens sont contre-indiqués dans l'ulcère gastrique parce que inhibent l'action des prostaglandines. Et nous, nous savons tous que les prostaglandines ont un effet protecteur au niveau de la muqueuse gastrique. C'est la raison pour laquelle on interdit à un ulcéreux de prendre un AINS. Merci. Effectivement, c'est exactement ça. C'était ça euh, votre extrait de Cœur Docteur. Tontu bi loolu la woon ñu feebar yàlla na yàlla fëgg seen bopp ngeen jox dig daje ci numéro jërë ngeen jëf.